yoona saar fukk ñett laata màggalu bésu jéggi bala woon yéesu xamoon na ni waxtu wi mu war a génne àddina dem ci wetu baay ba jot na ku bëgg ñoñam yi nekk ci àddina la te bëgg na leen ba fa mbëggeel mën a yem yéesu ak taalibe ya nga doon reer fekk na boobu seytaane xiirtal yuda doomi simon iskariyo ngir mu wori yeesu yeesu xamoon na ni yàlla joxoon na ko sañ-sañ ci lépp xamit ne ci yàlla la jóge te ca moom lay delluwaat mu daldi jóge ca reer ba summi mbubbam daldi jël ab sarbet laxas ko ci ndigam noonu mu sotti ndox ci ab këll daldi tàmbale di raxas tànki taalibe ya di leen fomp ak sarbet ba mu laxasaayoo bi mu agsee ba ci simon piyeer kooku ne ko borom bi ndax yow danga nar a raxas samay tànk Yeesu tontu ko ni xamoo fi mu nekk li may def waaye dinga ko xami Piyeer ne ko déedéet duma nangu mukk nga raxas samay tànk Yeesu ne ko su ma la raxasul doo bokk ak man dara Simon Piyeer ne ko kon nag borom bi bul yem rekk ci tànk yi waaye raxasaaleel loxo yi ak bopp bi Yeesu ne ko ku sangu ba noppi soxlatu raxas lu dul ay tànkam ndaxte seet na wecc yéen nag seet ngeen waaye du ñépp fekk yéesu xamoon na ki ko nara looloo tax mu ne setu leen yéen ñépp bi mu leen raxasalee seeni tànk ba noppi yéesu dafa solaat mbubbam dellu toogaat ne leen ndax xam ngeen li ma leen defal yéen ngi may wooye kilifa gi ak boroom bi te wax ngeen dëgg moom laa kon bu fekkee ne man mi borom bi tey kilifa gi maa leen raxasal seeni tànk yéen itam war ngeen di raxasalante seeni tànk bàyyil naa leen fii royukaay ngir ngeen di jëf nii ma jëfeeg yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënula màgg sa ngam mbaa ndaw ki ko yónni ginnaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu dingeen bég yéen ñépp taxuleen may wax xam naa ñi ma tànn waaye li ni mi wax faw mu am bi ñu naan ki lekk sama dugub weq na ma maa ngi leen koy wax ci teel balaa looloo ñëw ngir bu ñëwee ngeen gëm ni may ki nekk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku nangu kenn ci ñii ma yónni nangu nga ma man itam te ku ma nangu nangu nga ki ma yónni bi Yeesu waxee loolu ba noppi mu jàq biral ni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taalibe yi di xoolante te xamuñu kan lay wax ka yeesu bëggoon te mu bokkoon ca taalibe ya ma nga soonu woon ca kaw yéesu kooku la simon piyeer liyaar ngir mu laaj yéesu ki ko taxoon di wax taalibe ba daldi wëlbatiku ca yéesu laaj ko ne borom bi kooku kan la yéesu ne ko dinaa capp dogu mburu ci ndab li ki ma koy jox kooku la noonu yéesu jël dogu mburu capp ko ca ndab la daldi koy jox yuda doomu simon iskariyo naka la yuda jël dog wa seytaane dugg ci moom yéesu ne ko gaawantul ci li ngay def amul kenn ci ña fa toogoon ku xam lu tax mu wax ko loolu waaye ginnaaw yudaa moo yoroon boyetu xaalis bi am ñu xalaat ne yéesu dafa ko wax mu dem jëndi li war ci màggal gi walla mu ne ko mu dem sarax miskin yi yudaa nag jël dogu mburu ma daldi génn ca saasa boobu guddi woon na bi yuda génnee yeesu ne léegi nag ndamu doomi nit ki feeñ na te ndamu yàlla feeñ na itam ci moom te bu ma feeñalee ndamu yàlla yàlla itam ci teewaayam dina feeñal ndamu doomu nit ki te dina ko def léegi samay soppe sama nekk ak yéen dootul yàgg dingeen may seet waaye maa ngi leen di wax léegi li ma waxoon yawut ya fa ma jëm du ngeen fa mën a dem maa ngi leen di jox ndigal lu bees bëggante leen na ngeen di bëggante ni ma leen bëgge ni ñuy xamee ne samay taalibe ngeen mooy ngeen bëggante Simon Pierre laaj ko ne borom bi foo jëm yéesu ne ko fa ma jëm mënuloo ma faa topp léegi waaye dinga ma toppi ca kanam Pierre ne ko borom bi lu tax mënuma laa topp léegi attan naa joxe sama bakkan ngir yow yéesu ne ko attan ngaa joxe sa bakkan ngir man ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax balaa ginaara sab dinga ma weddi ñetti yoon